ah nit ñi di bruit journaliste yi gën a toj seen jot ndey caméraman yi télé Sénégal yi gën a kat seen ndey ku ci sa bàyyi dee woon xam nga ne lii doo ko def dal jël ay nit ñuy def ay bruit lii mel ne sabar man ne màggal ku tas mel ne jaañ lii du xew du ngénte du tànn béer du anytime waali tëggul coon wayul du Youssou Ndour du Pape di de Sidi Diop dëj la naqar maanaam dafa ñàkk papaam naqar les gars yi may laaj ndax lii rafet lu ngeen ko ko Kouyaté ba pare yow est-ce que yow Sata Diouf war ngaa jël ay garde corps ak loo koy doyee ndax rafet lu ngeen lii ci dëj ku génn àdduna ñu war koo jébbal sunu borom ñaanal ko yàlla lii xoolal maa maalaw di wëngalu moom moom ñoom xaalis nii rek lay topp nii la de Sénégal boo amee xaalis lii la géwal yeeg ñëpp dañu ñëw di bëgg di jël dañ lay jaali sax di bëgg yóbbu dara barke mooy waral bruit yi nii ñi am xaalis danoo sonn barke Serigne Babacar bu leen yaakaar ne ñi am xaalis ñi ngi ci mbégte déedéet boo pauvre li ngay dund ni muy neexee ak sa vie ni muy tranquille bokkut ak boo yoree xaalis yow man xiyaam ni taxawaay bi di gudd gudd li muy tàng tàng tàng yëpp li muy yàgg yàgg yàgg yëpp borom milliardaires yi ñooñu fa yàggal barke Serigne Babacar ndax dërëm bu ne sunu borom dafa bëgg a xam fan nga ko dugale ak fan la jaar loolu ñuy tànneel yow man xiyaam lii rafetlu ngeen ko lii lii dafa ñaaw ci Sénégal dafa ñaaw trop barke Serigne Babacar dëj bu mel nekk sabar gu tas wasalaam na ko yàlla xaare àjjana